mbokk jàngeen jaa jëf ci ànd geeg topp bi seen site numéro 1 de l' actualité sur mobile Sénégo yéen lecteur yi auditeurs yi ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñuy teewlu ci seen chaîne bi rawatina ci site bi à travers le monde dikk nañ ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni gëjoon naam waaye nag tey dafa dikk ak yéen ci benn spécial numéro benn document bu inédit boo xam ne dañ leen ko fas yéene defal muy Mots et Merveilles. Balla ne. fii mooy yëmbal sidd ñoo ngi nii yëmbal sidd waaw tey nag maa leen fii nii tey si yëmbal sidd ndax waa yëmbal li ñuy dund dafa métti trop moo taxoon tey ma wóolu leen fii nii ndax fii dafa tar tar ñi nga xam ne yëmbal boolewuñu ñu leen si nit ñi quoi ndax ñun li ñuy dund dafa tar ndax fii ay xale yu ndaw ñoo fi nekk ay tuutànk yi ndaw ñooñu noonu bu ñu leen bàyyee noonu ñu mel dañuy yàqu ndax fii ay booy ndaw ñoo fi nekk dem koso te dañoo war a dimbali booy ndaw yi nekk fii nii yëmb. Mhm. li nga xamante moom defe naa am na loo xamante ni tey war nañ ko wan maan li ñuy essayta ñu war ko gis li ngeen di dundee seen milieu bi mu tëddee ak li ngeen xamante ni tey moom ngeen di sàq ngir ñu accompagner leen ko ngir ñu jàppale leen ko kon Balla dañuy dugg rek bu ko defee li ci des nag ñu mottalee ko li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi ak xale yi ak dëkk yi hmm. kon fan la ñuy tàmbalee waaw Jean man waaw mën nañoo dem si ginnaaw hmm. dañoo sonn ñun waa yëmbal waaw fii ngay dugg te fii dafa am ay ponce am ndox fii mooy yëmbal sidde fii mooy daal kon suñ ñu ko tuddee daal kon fii ñoo ngi ko tuddee Sénégal fii mooy Gambie fee mooy Gambie waaw fee mooy Maroc dund bu tar la ñuy dund dund bu tar a tar la ñuy dund boo yaa ngi nii buñ eggee si boo ñu dinañ si wax dara ñoo xam ne ñun fii la ñuy toog ñun suba ba ngoon fii la ñuy toog man ba ba ni ma jugee Sénégal ba ni ma ñëwee fii fii laay toog barke si bëgg naa ambulant ji si événement mais amuguma munuguma ambulant ndax munu yoruguma départ bu ma ñun dañoo bëgg a liggéey ndax ñun affaire yi dañ dañ see bëgg a génn yéen a ko choisir wala lan lan moo waral yéen mais yéen ngeen choisir maanaam ñun xam nga ñu tamit fi lañ dëkk ci koñ bi mais tamit am na ñi xam ne dëkkuñu fi ay boo yi nga xam ne dëkkuñu fi dañ fee bëri guddi gi fii la ñuy ñëw fees fi dellu toog fee ne rangaloo fii te day métti si ñun te ñun doomi koñ na nag ñoo jug pour defar suñu koñ xaar ñu si kenn politiciens yi dañu bàyyi suñu yaay ñuy nax ak suñu papa ñuy nax nu ñu xamee ne ñun suñu réew mi lañ bokk fii amul autorité yëmbal si jëm boppam mu amul autorité fii amul fii amul autorité de nga wax ma fii naka ngeen organisé fii ndax defe naa am na njiit am na ordre ngeen organisé fii wala waaw fii gars yëpp a ñu nii kii mooy Cheikh sama doom ndey waaw kii laa àndaloon sàng jël si leen joxal ma Cheikh mu jël micro bi Cheikh naka mu. sant yàlla noo def sant wér. naka euh, dundin bi fii. ah fii fa laa tar xanaa. tar na ci lan ngay yëngu. man mbër laa quoi. man ah, da ngay bëri ah. ban écurie nga ne. écurie Jalle Ibrahima Thion. Jalle Ibrahima Thion naka euh, lamb bi mbaa jot préparation waaw. waaw. kon yaakaar jël sa wàll ci arène. waaw incha allah waaw. ok loolu euh, baal la ñu jàll rek. ana yeneen gaa yi kii waa kii mooy kii sama benn rakk la Abdou baas waaw. man Demba noo tudd waaw def ma jaamu rek sant yàlla bu baax eh, ñu ngi koy meññee rek ah, dundin bi metti na méttiwul. mais li ma jaaxal Balla ñu bari dañ leen di xoolee banditisme def katu ñaawteef ak yóneen loolu naka ngeen koy dundee. ndax liñ leen di waxal loolu am na wala nu mu demee noonu parce que tamit day baax loolu tam ñu dikk ci leeral ci tuuti. waaw loolu moom dëgg la bërki démb rek dama dem port doon am ku may seeti côté boobu noonu. Mhm. dama ne yëmbal laa dëkk rek benn waay rek mu ne ma non booy yëmbal moom foofu kenn du fa dem. yëmbal moom respecté wuñu waa yëmbal moom loolu moom dafa leer. mais Balla tamit est que nekkul tamit la ci yéen. ni moom ngeen di defal moom ngeen parce que yaa ngi may nettali sànq. léegi léeg yenn sa yenn boo yi bu ñu defee lu ñu war a def. Mhm. fii mooy làkkuwaay bi. waaw lo eh, bi waaw loolu nag ngir looloo tax sax ma dagg barax yi ñax yi nga gis nii man looloo tax ma dagg ko man dama jug isaan nii ngir defar sama goox lii waa buun ñoo ma ko jox lii mu sol nii waa buun ñoo ma ko jox. man man wax nga ma ne ma. Mhm. Eh, yaa am na lu ma doon dund démb ba démb def naa kaso am naa fu ma jaar. waaw ah, loolu moom tey ma fas yéene doon Balla l'ambassadeur. parce que dafa dana fas yéene jug mobiliser booy ngeen am beneen xar kanam. waaw ah, loolu loolu mën nga ci dikkaat maanaam askan bi xam ne Balla moo woon démb ak Balla bi dafa jël beneen tànk fas yéene ànd ak gars yi ngir am combat gi nu mu ne loolu laa bëgg nga dikk ci. waaw loolu moom dëgg la jaar naa si koso. booy yi bëri fii booy yi bëri jaar jaar parce que foog nga dikk ci sa jaar jaar ak tey jii nii yoon bi nga jël ba ñu def la ambassadeur la voix des sans voix. non dama dama koso lii nag koso laa ko toggee quoi. lii nii koso laa ko toggee ndax damaa nekk si koso sama mayen ma toog di jàkkaarloog ay cale ne ni man su ma si génnee war naa mën a dem quoi koso bi lu si xew lépp man ma jàllale ko quoi ndax ñu nekk si koso bi lañu lañu fay dund dafa metti koso bi barke Seexul Xadim nit ñaa ngi dee mais xam naa ne kenn xamul lool nag nit ñaa ngi bàyyi mu sedd mais nañu waxante dëgg nag xoolal baadole ñoo fii sàcc benn portable ñu tëj leen cinq ans Moussa fii la nekk wala ba bëggee fii lañ ko vidé korog barki Dembo Ndiaye toog fii korog lañ ko vidé korok lañ ko fiiree. instant yii nii dafa am say éléments yu. booy yu bëri. booy yu bëri mën nañ mën nañ trente booy bi xam ne li may wax barki Seexul Xadim damaa xam ne dama bu ñu bëggee seen tur. non taxawal tamit nga xam ne kóol appareil appareil wala seeta ñu nit xoolal ñu deux ans xoolal am na ñi nga xam ne ñoo ngi jël suñu alal kenn waxu si. yu bëri ay pétrole yi nii xoolal kenn waxu si xoolal ñu ñu waa yëmbal nañu na ñu xam ne ñun si réew mi lañ bokk li ñuy wax fii nii ay am kumba am lu ndey ñun waa yëmbal ñun boole ñu si réew mi ñun ay kolosaar la ñu jàppee ay dof la ñu jàppee waa yëmbal léegi léegi léegi baal léegi lan nga fas yéene yàq sa mafia bi ngir loolu nga bëgg ñu bañ leen ko jàppee tey jii ñu ngeen doxee neneen tey. ngir ngir ñu soutenir waa ñu jëmbali yëmbal ndax Macky Sall moom noonu suñu président de la république bu ñu doon jàppale jàppale nañu bu yàgg ndax moom avant moo avant laa waa di si réew mi fi leen ñëw dañu doon ñu taalal ay raakool ñu ñu siy ànd ak moom doon lu ndaw man maa ko yóbbu kër taalibe yi barki Seexul Xadim mar moom Marème Faye Sall mu yóbbu leen ba kër taalibe yi ñu ne bu ñu faloo rek yëmbal dina rafet tey bañ faloo xoolal ba ni ñu waaye jeexalee nguur gi Macky Sall man gisuma fii lu mu fiy defar fii gisuma benn sax pantere ba mu fiy defar pantere biir yëmbal fii te loolu dafa ñaaw te moo ñu jiitee dinañ ci ñëwaat ñu doxantuwaat tuuti nga won ma bërëb bi am na sa yenn yi waaw aco nañ dem noonu nii ana boobu booy ah Mor mais mais sànq yaa ngi wax fële mooy Gambie. Gambie waaw dañ fay dem boo yaa ngi ne boo yaa ngi ne la. Maroc Maroc mooy. Maroc moo ngi fii fii yëpp laa lay wax ñu dem foofu voilà mbokk internet yi nekk gisandoo loolu tey moom euh, ñu ngi fii ci yëmbal sud euh, ànd ak euh, Balla fas yéene am immersion boo xam ne dañuy dugg ci seen réseau bi seen milieu bi nga xamante ni moom la ñuy faral mais Balla tamit euh, est-ce que jotul tamit. mbirum banditisme mbirum agression yooyu nga xamante ne tey jii nii tax na ñu bëri nanguwuñu leen nawloo tamit comme nee nga ambassadeur nga tey jii nii mu jot booy tamit xam ne tey. am na cër goo xam ne tamit boo bëggee nu xoolee la xëy na est-ce que nekkul yow yaa koy loolu dëgg la tamit booy nii lu leen lu leen lor ba si Baye Darou ministre bii français xam nga ko. kan ci ministre bii français waa DER. xam nga ko bu baax. kër gii la ñëwoon kër gee wax fi nu la weng lu ne weng ne booy yëpp dinañ leen financé lu ne weng la fi wax financé wu si kenn booy bu ndaw bii nii di ñëw xoolal kii nii arabum ñëw kii mooy coxal kii di sama booy bi mooy coxal coxal coxal kaay coxal kaay <laughs> bu ñu kii moom mën na la wax lépp lu bëree bëri booy ñooñu ko def bii présenté wu mbokk internet yi lay seetaan salaamaaleykum maa leen nuyu ku nekk mais lan mooy indi sa tur coxal man tudd turu coxal bi. Mhm. ba may jàng école la la lañ ma ko tuddee. ok mais yow noo tudd. man Abdou Aziz laa tudd. macha allah tur bu sell bi. waaw. ok sa waay nee na dañ leen fi diggoon ay financement yooyu noonu nu mu demee noonu. waaw waa 2STV ñoo fi ñëw interroger ñu fii si koñ bi. wax loo ñu ñu def ñu wax loo ñu benn émission ñu def émission ba pare. Mhm. ñu dig ñu xaalis jox ñu suñu xaalis. Mhm. waaw te booy yu bëri jàpp nañ leen si. booy yu bëri jàpp nañ leen ñoom si kaso te booy yu bëri ñi nga xam ne si émission bi sax lañ leen jàppee moo tax ñu tëj leen deux ans ay ñoom Baye Darou. booy loolu moo leen métti loolu lañ doon kaas. waaw waa DER tamit ñëwoon fii ne dañuy financé. léegi yow tey lan mooy sa message lan nga bëgg tey jii nii eh, yi dégg ko tey mu doon loo xam ne mu ngi sa biir xol. man la laa bëgg ñun waa yëmbal ñun ñu jàppee ñu ay nit ñoo bokk si dëkk bi xoolal fii ñun fii lañ dëkk fii la ñuy fréquenté mais fii fi ku ñu fekk duñ nawloo ndax fii nii moo loolu ko waaw fii nii yëpp ay barax kese la ay ndox dañoo war a jàppale defar yëmal mu baax nawet bi naka ngeen koy dundee fii fii nawet bi na lañ koy naka lañ koy dundee fii kenn du fi jaar nawet fii bu tawee kenn du fi jaar bu tawee kenn du fi jaar duñ am fu ñu toog si mbedd mën bi fii nii la ñuy toog kon baax na Balla. Mm-hmm. ñu doxantu xool yéen ruqrukaate mais Balla mais tamit yéen xanaa du ngeen def ay journée set set ah ñu ñoo koy def ñu dong koy def ñun dong ñun dong ñun ñi xanaa dina fii ñëw def ñun ñi ñuy jim saat si biir koñ bi ñun ñi ñuy jim si biir saat si ñoo koy def booy ñi mais ñii di tuur mbalit yi tamit xanaa duñu leen jàppale ci xam ne waa koñ bee la te ñoo gën a jege si barax ñu ñun côté bee lañ dëkkee te ñun ñooy dagg barax yi te ñoom heure bu ñuy ñëw fi la ñuy seen ndox yi di fi koroog ñoom nag booy ñoo doon xëcc saax ñax yi ak mbalit yi nii kaan dem si roq bii ma lay wax toj mbaare yi foofu la mbalit mi nekk voilà fii suñu grand frère yi suñu ñu tax tey ñu dem bay toog fii ñun ñoom ñoo fi doon ferek fii nii tey ñoo dem bañ màgg ñun booy doon roy seen tànk mais instant dañoo jug pour bàyyi lépp lépp lépp ngir dimbali yaay ngir dimbali papa lii rek dafa ñaaw lii lii rek nga jël ko jam ko doomu jàmbur rek dafa ñaaw te mbaare li kenn du ko tul ñu koy tul bariwul lii rek nga jam ko doomu jàmbur dafa ñaaw te booy moom la ñuy dund fii ay xale yu ndaw crime yi ñu dégg yëpp ay débutants yi ñoo koy def booy ndaw yi te fii war a. yàggul dara dégg ngeen crime gu fa am. dégg nañ ko wala tey euh, loolu tamit. Euh, ñu xam ne état tamit état mi ji affaire yi deful fi dara ndax crime yi fi am rek lépp lépp rek en général ci élection yi bu jub see lay doon crime yu bëri ngay dégg yëpp élection yi bu jub ndax ku nekk da ngay jéem a sacrifice sa morom. mais Balla est-ce tamit nit war na la jaral nga Mame Cheikh nga lor sa morom ngir alalu àddina. non moo am ci politiciens yi de. politiciens yi la dund de tey bu ñu mënoon rey ji ñii. bu ma jëlee exemple ci yow tey am na lu tax tey nga xëy nga ne man Balla am na loo xam ne dootuma ko defati sama vie. lan moo tax nga yow xëy na tamit loolu war na doon message pour ñeneen ñi tamit bëgg naa nag man moom xam ne moom booy nekk yëmbal fii yëpp dégg déggal nañ ma ndax man a ñoom ñooy toog chaque jour fii man leen booy isaan xam la ñuy def nañ toog xaar yàlla man maa ngi dama bëgg liggéey ambulant man ambulant laa événement tabaski bu wóor na yàlla ma si am xaalis yu wax càll mais départ laa amagul bu ma yóbbu nii pour mu dem liggéey ji sama yaay sa juróom may fekk fii mu ne ma baal te yàlla ji tax baal fi ngay toog ma ne ko la jàppale rek laa bëgg tey suñu sañoon tey tabaski bu jotee tey ku nekk kër li nga yéene sa ay reyal ko xar te ñun ñaan nañ yàlla pour dem bay reyal xar ndax ñun dañoo war a dimbale lu baax li yëpp ñoo koy si koñ bi korog man ak yow am na émission bi ñu defoon si la amee ay xaritu mbàkke mbàkke ba ñuy ñëw si biir koñ bi fii seexal ma fi def ma fi lan jóorin ayal kii jóorin bu mag si biir koñ bi fii kon am na lu may liggéey si biir koñ bi ak liñ ma am na ñu ma respecté ñu bëree bëri ba si kilifa diine yi nekk fii yëmbal gi yëpp maa leen ni bégee di bégee gaa yëpp ñu leen yëmbal a ngi nii war nañoo waaw ñu leen nag tosambaare fii la waaw bu bu maa ngi dégg nag xale jigéen di naan tosambaare mais tosambaare lii moo tax ñu naan tosambaare kon kon kon kon kon kon kon mbokk internautes yi yéen a ko déggandoo Balla defe naa loolu exclusivité kon maa ngi dégg mafia tous sar bi ah, waaw ñooñu duñ dara nag dañuy xaar non leeralal mu dégg ñooñu mafia tous tasar bi lii moo ko indi tosambaare bu ñu nee tosambaare tous tasar lii la lii la li moo tax ñu naan loolu dara jàmm muy dugg wala muy bonde lii la ñu wax mbaare. dégg nga ko seet naa tus tasar bi concept bi ñoom ñooy borom léegi bu nu jugee non tey tey tey tey tey maay topp sa ginnaaw. ah kon nañ dem dem grand théâtre yaa gën a xam ñu kalaate ay kalaate man baal la man amul lu may ragal yàlla suñu borom daa ragal kan dem grand ñu kalaate affaire yi. grand affaire ñu bëri ñu ko bi ñu dem nañ Europe ñu dee nañ si gaal gi. ñu bari dee nañ si gaal gi ñii dem nañ si koso bi ñii mooy loolu noonu. tey nag ñun ñoo ju fii mooy fii mooy grand théâtre mooy terrasse bii nii waaw fii mooy grand théâtre boo yëpp fii la ñuy. est-ce oh, mais Balla environnement bii moom. bii moom bii xaw na xaw na doy waar de Balla fii. foofu lañ jëm ah? mais Balla côté tamit xam nga environnement bi tam ci wàllu wér gi yaram ak yu ci bëri yooyu noonu léeg-léeg tamit di ngeen koy sóor ak yooyu noonu. non ñun moom mën na li ma la wax da ñun bàyyi ñu dara dara dara xel. Balla fan lañ nekk nii. fii mooy grand théâtre fii la booy ñu guddi gi man maa dem ba yàqal leen ko dagal leen ñax mi nga xam ne ko ñëw jëlee ne gis moo tax booy yu bëri commencé fee arrêté. waaw bis mën nañoo dugg si biir nga gën a xool. mais mais Balla fii dafa mel ni ay kër la dafa mel ni dafa am ñu fi dëkkee waaw fii ay kër la ndax korog ba ñuy dagg ñax yi borom kër yi am na ñu ñëwoon di wax mën man leen yéen da ngeen di bàyyi bañ ñu defar ku nekk di ñëw naan li sama kër la ñun leen ñun fii defaruñu ko pour ñuy daaneel kër yeeg ñu wala ñuy def dara fii dañ taa defar nii pour boy yi fii dugg lañ. alkaati bu ñu leen dàq jee yaa ngi ndox mi nii. Hmm. xoolal ndox mi nii. waaw gis naa ndox mi alkaati yi xam nga liy ponce la ay ban lay ne bul yaakaar ne amul ndox ji nga dafa maase ñax mi rek comme nii nii. Hmm. boo duggee sa tànk lii. da ngay surux te fii la ñuy jàpp dàq ji booy booy yëpp dugg fii te lool noonu léegi boo xamul ban booy moo siy dee te dégg naa fii rek aussi fii dafa am yeewu fii nga gis ni am na yeew de. Hmm? am na yeewu fii rek nga gis ni am na yeew de ñoo ngi ñuy seetaan nag. Hmm. doomu yëmbal si réew mi lañ bokk nañu respecté xam ne ñun si réew mi lañ doomu yëmbal yi ñun duñu ay bandi. fii musul am cas de fii non fii moom musul am ku fi moor moom wax dëgg yàlla macha allah moom fii moom yëmbal moom macha allah côté bi moom musul am moor. Hmm. waaw macha allah koñ bi ba mu daj buut ba buut moom musul am moor. fi ñu nekk nii fan la. fii mooy grand théâtre. waaw tax ngeen tuddee ko grand théâtre. non booy dañ fiy gën a saqan rek fii la ñuy gën a saqanee fee nee booy fi lañuy ñuy mafia bi fi la ñuy <laughs> nekk moo tax. Eh. moo tax ñu tuddee ko grand théâtre. waaw alkaat yi nag ñaa leen wax dara yi police police bu bees bi. ñaa wax na nag ñun fii dañ fiy toog ñun fi lañ dëkk barax yi ñoo koy dindi. ñun yoruñu lu ñuy tere yoruñu loo xam ne ne. mais mais mais mais tamit il faut nga comprendre alkaati dafa am loo xamante ni ñoom daf leen war. maanaam taxaw askan wi ci wàllu kaaraange. Mhm. il faut ngeen leen comprendre. Mhm. maanaam lii mën a dox seen diggante mooy collaboration. et tamit am na loo xam ne tam bu fekkee mi ngi ci yéen te dañ koy tere. il faut ngeen nangul. maam Balla nu ah. léegi yow lan moo la métti loo xamante li nga booyee li booyee nga man dëgg moo may rey. dëgg moo may rey li nga booyee dañuy lekk seen xaalis bi booy booyee dañuy nekk fii sax di def lii naka si loolu noonu wala leneen leneen. Mm-hmm. ñu lekk li ñu yore yëpp ba pare yóbbu leen ko tëj leen bàyyi loolu dafa metti bàyyi. barki sëñ Bamba dañoo war a dëkk bi mu jóob dëkk bi bàyyi na na raaya jóob ñu xam ne ñu si réew mi lañ bokk. mais autorité autorité dëkk ci gox bi seen yenn kilifa yi xanaa jot nañ leen dégg seen doléance wala recevoir na lan mooy seen diggante ak eh, seen autorité fi nekk non man daal kenn laa laa xam ne nañ ñaar daal la muy korog ba ñuy dindi barax yi Matar Cuun ñoo ngi koy sant Matar Cuun benn waayi dëkk fii la benn kilifa gu dëkk fii déggoo ñoo ngi koy sant bu baax moom jàppale nañu si barax yi jox ñu benn weccet ñu jënd ay jaasi moom dongo ñu si jàppale demoon nañ si maire bi maire bi baaragay ma fa nekk bëgguma woon sax tey tudd seen tur yi baaragay ma nekk sa maire ba digoon nañ ñaari permis trente permis waxoon naa ko Sénégal 30 permis ba léegi nii jotuñu si kon ñoom kon waxoon nañ ko xoon 30 permis la ñu duggoon permis yooyu jotuñu si ba pare man mii nga taxaw ak yow wax ak barki yàlla kayitu juddu na ma rey. amoo kayitu juddu kayitu juddu na ma te ñoo ma ko diggoon. xaw na xaw na doy nga ne. non kayitu juddu na ma rey xam tax am naa ko mais ñoo ko booleke ñoom maire bi ñoom ñoo ko booleke sama mag yi xam lu tax ñu boole ndax dama ne leen man anduma kenn man liy defar yëmbal laa àndal. boo boo sax loolu moo tax booy buuni jox ma tiset bii ma sol ko Saliou moom moo ma ko tàppeel maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ak njaxat ñoom dama leen la genre de gens voix laay dund moom ma lu kon nag ñoom bu ñu bu ñu rey bu ñu damm pàqaloo bay nekk fii nii xaw ma dinañ fa dem xaw ma duñ fa mën a dem mais bëggoon naa sax ñu jaar fa ndax ñoom dañ ma samay waa lañ mooy fi ñu njëkkoon a jaar sànq fi ñu càddee noonu war nañ fa mën a dem ndax dañ leen a doole ñëw defar fa loo xam ne ni amul benn njëriñ place publique loo xam day yokk bandi day yokk booy booy fa la ñuy gën foofu paax ba foofu la bu booyee sax gën a ëppee loolu bëri si loolu moom bëri si non non dama bëgg mu def fii parce que banditisme bi tamit dafa doy waar te réew mi fi mu toll nii bëri nga meurtre yi ngeen di dégg bëri na agression yi ngeen di bëri na euh, loraang yi nga xamante ne tey ji ni ñu bëri tey jii nii jéppi nañ leen wala tey jii nii nawloowuñ leen ndax yi ñuy dégg ne kat ci yéen lay jóge loolu moom dëgg xam nga lu tax loolu noonu ranki ni di si ñëw man li may def nii rek ni tali li may wax nii rek su bu nga bu nga tegoon suba suba ma génn jaar jaar déggoo wala cosaan da nga gis ay booy dama si bundu xatal ndax lu tax loolu ndax dañoo ne samay morom ba pare man li ma bëgg ak yoon bi ñu bëgg jaar ak yoon boobu bokkatul moo tax mafia yu bëri dama leen xaw a teggi tànk foofu noonu bu ma doon toog tey ay jàmm gën wala ay sam-sam wala ay ginnaawraay fii wala ay géejawaay wala dem ba kër Masaar mbalit ma ñooñu noonu jàmm lañ sekk xam nga ñun ñëpp ay jàmm lañ sekk korante la yëmbal fii ñun ñëpp benn lañ géejawaay yëmbal jàmm gën foofu yëpp benn la boo dugg ñun benn lañu. bi des fois non règlement de compte bi la. mais règlement de compte ji loolu nag ay man moom neexul ba neexul mais man moom naay règlement de compte man. te mu la bu ba ma àndal xaaj bi. Mhm. waaw man dama ndax loolu si 2STV la jugee. si 2STV la jugee. ndax waa 2STV loolu si ñoom la jugee. mooy yoon naa woon la kalanmaa bii. lii lii mooy booy booy waa 2STV yi génnoo woon. Mhm. si télé bi ne. dinañu jàppale pour ñu dem liggéey ji jàppale wu ñu booy yaakaar ne man dañ maa jox xaalis bu jeex booy jàmm si loolu ba léegi daa ngi mën a vie règlement de compte baa ngi daw correct rek. mais est ne fii doo expliquer vie mu comprendre que ni du ci yow. non bu fekkee règlement de compte dafa nar a am bakkan di ci tuuru loraange di ci am. réew mi xoolal koñ bi nag dafa am ay góor jigéen dama koy teel a wax. man ah du ma nëbbu dara dafa am góor jigéen fii. ne yëmbal dafa am ay góor jigéen. barki Seexul Xadim dafa am góor jigéen. ay góor jigéen. yan preuve nga am yan firnde nga am. firnde yi leer nañ ñi boo leen ngeen ñëw ma yóbbu leen si kër yi góor jigéen yi man xam naa ko Farba fii te dañ fi te dañ fiy jógee incha allahu rabbi. kon fi mu ne da ngeen a pare pour maanaam jëlee fi góor jigéen yi. barke Seexul Xadim dinañ fa jógee ndax waa koñ bi. ngeen def ba xam ne góor am na. non. man foofu fépp na ma bëri ay booy booy ñoo ma wax man tamit damaa dox ba xam ba xam ne booy li ñuy wax dëgg la benn góor jigéen bi xam ne yàlla ma jox barke Seexul Xadim mën a jëm ji ñoo taxaw 35000 la ma jox si ma xëy fëgg nekkam ak su ak suturaal ma 35000 la ma jox nanam ak suturaal ma xam nga tax ma suturaal ko yaayam si biir kër googu la dëkk te yaayam dafa feebar ak waa koñ bi waa koñ bi xam waa koñ boobu loolu lañ bañ côté yii nii loolu lañ bañ te ñoom ñëppay moo tax man leen booy bu leen jël xaalisam xaalis góor jigéen soxlawu ma ko nañ dem man kii jàq ñoo ñàkk man du ma lekk xaalis góor jigéen suñ ko lekkee day nekk day mel ne leneen su ñun day mel ne personne su ñun mais ngi waaj daal ngir Eh, jëlee leen fi. dinañ fa jugee de fii lañ nekk farba gii farba gii lañ nekk dinañ fa jugee fii la ñu nekk waaw. li nga mhm. jot a daf mel ni mafia bi am na am na ñu jot ci diggante waaw booy yi mais nag dañuy rasu. lu tax na ñoom mooy loolu loolu jëlal gars yi ci yow laay tàmbaleen parce que dañuy gis ni souvent seen milieu bi ku ci nekk am na lu ñu lay woowee. duñ la wooyee sa tur euh, ku li ñëpp miin mooy Balla Mbaam Balla Mbaam lan mooy faral di indi tur yooyu ñu leen di woowee nga wax ñu yow sa kaa yow lan mooy indi Balla Mbaam. waaw Balla Mbaam bi de loolu la dëgg la tax ba ñu méttee sama un an yi gis bi sax laaj ma lu tax yow ñu ñu tuddee la Balla ma ne ko Mbaam Balla Mbaam da ba may nekk xale dama rabe woon damay fubal doon bëre doon na doon jaay perek si koñ bi waaw mu ne ma Balla Mbaam demal fële yow demal tuddi un an Balambaam kenn xamul ban façon ni la kenn xamul rab la kenn xamul lan la. ma ne ko Balambaam nag su jugee si lii rek da nga xamee ne nag Balambaam du doo ko sax gisati bay taxaw naan dinaa ko tëj wala dinaa ko àtte ndax Balambaam isaan nii loolu yëpp dafa bàyyi ba ngir tey sëriñ suñ suñ sëriñ suñ maam Mor Mbacke yàlla na ko fi yàlla bàyyi xale bu ndaw la suñ morom la. tey dafa ñëw sagal ma biir yëmbal. Mamor Afi Mamor Mamor Mbacke ci la waa Kër Sëñ Fallou yi. ñëw tey sagal ma biir yëmbal. seede yàlla ba maire yi fi nekk ñëpp isaan añ maa bëgg. ba côté bu ñu romb dañ may bëggee ndax Mbacke Mbacke bi ma. mel daal yow da nga fas yéene da nga fas yéene daal sensibiliser mobiliser booy yi ngir ñu bàyyi banditisme bi bàyyi agression bi bàyyi def ñaawteef bi. non booy yëpp pare nañ pour dem liggéey booy yëpp pare nañ problème ndax man damay am nañ réunion bi nga xam ne ñun ñii ñun ñi nga seen ñi dañuy réunion par samedi ba samedi dañuy réunion dañuy waxtaan xam nga dañuy waxtaan bu bu nekkee ay fukki dërëm la wala sax cent franc cent franc mhm. yi nga xam ne bu ñu waree dagg lii mhm. ñu si xaar kenn ñu ñëw dugg fii ak ay suñuy raq ñu ñëw ñu dagg barke ñoom moom dong lañ siy gërëm ñoom seen bopp lañ fi nekkal ñoom seen bopp lañ fi nekkal de moo tax ñu ba ñu jàppale ñun defuñu kenn dara waxuñu kenn dara mais l'essentiel ñun ànduñoo kenn kuy ñëw lii nga ñuy dimbalee ñun liggéey ko te yàlla tax ñun ku liggéey yëmbal ñu àndal ku liggéeyul yëmbal mënu ñoo ànd ak te yëmbal fii man maa ko man maa fi res jëm boppam paa yeeg maire yeeg ñëpp déggal nañ ma te réunion bi ma fi woote ñëpp ay ñëw lii nag damaa xam ne émission barax la te émission booy yi dund lu ñaaw tee fi loolu la mais yëmbal ku ma fi woo paa moo fi woo wala maire moo fi woo da nga may ñëw ko ngay ñëw ma su jeexee jeex na waaw ñun yëmbal la cent de fois la ñuy dund yëmbal la non ball ball li l laak du tubaab waxal lu non la la la genre de sans voix la ñuy dundoo. defe naa si xam nga damay bañ seet naa daal lay reetaan. Mm-hmm. seet naa sa waay bëgg dégg tubaab neex te leer. la voix. waaw la voix des. waaw waaw. Oh, la voix des sans voix. Ah, non maam Cheikh kaay dimbali ko <laughs> maam Cheikh lu ñuy wax. la voix des sans voix. ah dafa maam Cheikh xanaa da nga jàng. waaw jàng ah, lu tax nga bàyyi projet bu weesoo làmb jeeg yi. waaw ñun moom bàyyi ba nañ projet rek. Eh. mais suñu premier projet moom mooy yëmbal ñu defar fa fii. Eh. suñu suñu secteur bi waaw. dafa war a mool ma fi man maay Cheikh Kirkir. <laughs> lan moo indi a Kirkir. <laughs> man fecc sa kir. Eh, balaa balaa balaa dem Ablaye Ablaye nga may benn benn pas de danse bu doy ndax temps moom dafa xew quoi. tus dërëm seex seex kirkir ma waaw seex ah, kirkir ngeen woon waa tus tasar ni affaire bi yéen la dañuy xaaju rek fii tos mbaari ñoo indi de waaw la bu ñu jógee fii a dem waaw bu ñu jógee fii bu la neexee ñu dem fee demaat paaka boo tëj ko kon baax na mhm. kon baax waaw Balla daf mel ni am nga koo nu bëgg a présenté de waaw kii mooy Abdou sama benn waaju baax la kii mu ne moom moo day liggéey fii ñu moom xam na si dara mën na teye mooy ak li ñu yàq fii yëpp lu bëri mën a ko si wax bi noo tudd ok sëñ Abdou Khader yow ci lan ngay yëngu. man maçonnerie laay liggéey. mu mel nii Balla Mbaam day sa wëllëre waaye loo ñu mën a wax ci moom ak euh, ni ngeen dundee fii ak euh, booy fii ci milieu bi ñu leen fekk. waaw ah, Balla suñu raq la ñu ak magam ñooy ànd. Mhm. Balla nit ku baax la lañ xam si moom. Mhm. ambulant la day góorlu di teral ay waajuram. fii nii dañuy gis ñu fiy tuur ndox ku fiy tuur ndox ku ne. Mhm. Balla boo ko tuurul si kaw day ñëw tàkk sa kaw. aalu fii keroog barax yi ñoom ñoo moo tax ñun nag Balla chaque jour dañu ñaan ko góorgóorlu di ko remercier mooy ndax chaque jour day won gars yi ne leen nii la war a doxalee tuuti ne waaye ku am jom la. kon maanaam yéen seede ngeen Balla mi ngeen xamoon ak Balla bi soppeeku am. bu baax baax Balla ma nga xamoon ak bii ute na ndax Balla léegi boo gis su xëy liggéey bu toogee fii kenn du nangoo dig digal yi nga mel. Mhm. fii ni ñu ne fiy jaar mais ay jamono kenn nangu fee jaar à grâce que Balla léegi nag leneen li mooy. Mhm. ñun suñu terrain basket bee Baara Gueye dañuy liggéeyal ak place publique bi ñun ay maçonnerie lañ dëkk si koñ bi au lieu que ñu wax ñu ne dañ fiy liggéey terrain basket ak place publique waxuñu ñu ko jël nañ fi waa Pàcc Lawbe yi ñu indi ko fi gaana sax loolu baax na xàll nañ yoon bi mais liggéey bi am na béton bu baax am na ciment am na suuf am na brique mais liggéey bi moo assuré wul te ñun mënuñu kaa kaas ki yor wàllu environnement bi muy tin saa bu ñëwee kaas ko danaan am na contrôle te ñoo gis contrôle bi nooy mosee gis ku jël béton ku jël fer lal ko si suuf fuy suuf si kawam teg si béton loolu kenn musu ko a gis ñun dañ kaa kaas a kaas ba barki démboo Ndiaye dañoo parax paraxee liggéey bi mosoo ba ñor ndikoon yor liggéey bi daa daw ndax gaa liggéey bi baaxul douze centimètres lañ commencé dalas bi trois centimètres lañ arrivé su nekkee ni ñoom am na lenn lañ ci laam-laamee nañ jël martoog beneen woo contrôle yi ñu ñëw ñu xool taatu miir yi amul fuuy béton amul dara dañoo wàq nii suuf teg biir yi cooke mu dem ñun nag loolu dañ kaa kaas liggéey bi du assuré trois ans lañ la may lépp fàq bu tawee machine bi bu aspiré ndox mi séparé wu ak béton beeg suuf bi ñun nag loolu la ñuy kaas boobu ba léegi comme gis nañ leen tey nag ñu ne Balla dañoo bëgg seen waa ji ngeen wax mu dékk ñu wax ñu kaas suñu déléance bu nekkee ni dañoo bëgg ñëpp yëg ko yëmbal monsieur le yëg ko ndax chaque jour bu ñu bëggee dem si monsieur dañ naan monsieur nekku fi tim moo wax loolu ne am na contrôle dañoo bëgg nag ñu indi ñu ñu xool balaa ñu tàmbali place publique bi terrain basket bi pare na mais place publique bi pareegul loolu lañ bëgg wasalaam. kàddu gi nga tëjee mu doon xëy na message parce que xale tamit du te waxtu wu ne rek di leen jox conseil ndax yéen ñii seen i mag te ñu bëri dafa am bët buñ leen di xoolee ndax mi ngi may wax léeg-léeg police ñëw fii am na ci ñoo xam ne si ñoom jàpp nañ leen am na ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen tooxi duuna tey lan ngay tëjee mu di sa kàddu yóbbal. waaw di wax ni comme ku mel ne Baye Daaro Youssou Baye Daaro moog Balla ñoo doon ànd fii booy bi am jom dama doon ànd ak moom dem liggéey am na batiment ma yoon caar azir ñoo ànd liggéey ko ba liggéey bi jeex dog-dog def naa defut mais dañoo bëgg ñu gëstu ko ñu xool Youssou mu génnaat ci population bi Youssou téyeer la day liggéey mën na liggéeyam trop booy bi am jom booy bi jox ay cër ay magam ñu loolu lañ bëgg wax gone yi nañ góorgóorlu ndax ñun gënuñu leen te ñun ñoom gënuñ ñu góor góorgóorlu a chaque fois di xool ne seen nawle ñoo nekk fii bañ ku naan leen à cam nañuy góorgóorlu ñoom ñëpp dem liggéey ku liggéeyul toog jàpp sa ñaamur loolu la ñuy wax wa salaam. kon baax na bal la xam naa après ñu gis sunu yaay wala papi ñoom it tamit xëy na ñoom ngeen fi dëkkal am nañ fi kàddu gu ñuy bëgg a joxe tamit balaa noo tëj rek. dëgg la moom tamit fi mu la wax noonu dinañ fa dem mooy fi mu la wax ne si suuf si ak place publique yooyu noonu il gis ko. ndax li mu wax am njëriñ il faut nga il faut egg foofu gis nga xam ne ay doomu aadama lañ fa fekk ñuy daan seen doole ñu jëlee leen fa jaay leen doole ndax élection maire pour rapax rapaxee ko du tee xëy na est-ce que dédommagé wu ñu ne wala tamit xëy na wutal leen feneen xëy na ñoom am nañ seen i raison. non joxuñu leen dara ndax man foofu laay toog joxuñu leen dara fee lañ leen yóbbu woon dañ leen a wax ñoom moomuñu ko isaan dañ leen a jaay doole carrément na jëlee leen fa ñoom ñëpp dañ fay dem après. baax na defe naa defe naa mbokk internet yi yéen ñi ñuy eh, teewlu waxtu wi nii eh, la ñu bëri ñu ngi koy miinee defe naa ci reportage googu 2STV yi defoon Balla ci la lu ñu bëri découvrir nga ànd ak ñoom ngeen dugg ci seen milieu bi waaye mel na ni bu ñu la dalalee dikkoon nga ci ba am na yoo leeraloon te xewoon na maanaam ci reportage googu noonu ndax ginnaaw loolu dafa mel ni nee nga am na ñoo xamante ni dañ leen a teg loxo eh, ma bëgg xam histoire googu noonu nan la demee réellement Balla waaw histoire boobu noonu nan la demee mooy bañ jàppee booy ñoom baay Daaru ak ñoom Jiil ak Kirikou bañ leen jàppee ñoom ñett dañ maa woo téléphone si guddi gi ne ma booy lañ leen jàpp si guddi gi lañ leen jàpp sa yàgg na de genre booy war nañ fa am ay six mois. genre maanaam jour reportage bi la wala. non non bañ report ba pare. bañ man ak waa DG bañ see émission ba pare. ba waa DER ñëw fi. ne dañuy financer booy yi. ba booy yëpp am ngëm gëm am confiance bu bëri ñu xam ne waa DER ñii comme que ñëw nañ fi ñi ay kilifa leen duñ naxaate ndekete waa DER ñoo gën a yées ñëpp booy nag après seen ñeen jàppee fee ne génne leen benn vidéo ñi leen waa 2STV yaa ngi nii nday ndaak xam nga bàyyi daara bu baax a baax a baax a baax a baax nday ndaak tey boo yooyu noonu tey colof colof am rek waa 2STV ñoo leen ko teg plainte plainte bi nag bi ngeen mi doon laaj man nag waa 2STV yoo xam nga si dara man nag ñoom egg nañ dem nañ mooy brigade mooy fii nii conk conk dem nañ fa mën ak ñoom gendarmerie conk ñoom nga leen porté plainte ñoom ñu porté waat la plainte. ñu porté waat ma plainte ñoom tamit. jaa naka la demee ndax dañ ma porté plainte dama leen doon saaga ndey moo tax après ñu jaama doole sinon mooy chef bi waxee chef bi numéro moo ngi nii isaan sama gaañan la sama waay la man ak moom dañuy déggante chaque jour moom mooy moo mooy moom mooy capitaine foofu noonu conk bi. sama waay la dañuy déggante chaque jour mu ne ma Balla góorgóorlul ñee nag dañaa suñëwul ak ñoom suñëwoo dossier bi boo suñëwul da ngay perte te ma ne nag comme que ñii jaa nañ ma doole ñaa leen baal yàlla ñaa yàlla te ba léegi 2S moo ngi nekk si ay tolof tolof te duñ jugee si ay tolof tolof nag xamuñu kuñ sekkal mbir mi ndax ñun dañoo dem mun cale bi ñuy feeñ ni man mën naa laa waxoon bi cale bi ñuy feeñ nii 2S bi ñu fa feeñee billaa wala wa taala cent franc yu gën a ndaw joxuñu ñu ko te damay génn nit ñu bëri ñu yaakaar na bala mooy lu dul jeex mais bala xam na lay demee jom ak ful la mais Balla yorul dara Balla jom ak fula rek lay demee Balla su yoroon sa jur xëy di du sax toog fii. ok fee laay toog bi fee laa koy teg bi heure bu ma xëy dama yónnee glace booy ñëw. moo toog kenn du fi cuur mbalit kenn du dara lii yëpp maa koy lakk lii maa jal jël fii pour pour lakk ko kon man maa ngi maa ngi defar sama réew mais ñun ku ñu jàppale lañ bëggul ku lañ amul ba pare yëmbal amul autorité. non Balla nag maire am na fi mairie baa ngi nii gars yi tamit ñu ngi góorgóorlu. non yëmbal amul autorité su ma la waxee yëmbal amul autorité rek amul autorité. maam Cheikh da ngay déggal ah fii waaw amul autorité dañuy dimbali. ok waaye fii ñun ñoo maintien jug dóoral suñu bopp di dindi suñu bopp salte yi te yii pourtant autorité liggéey autorité la ki ñii taxaw ne. kon nawet bi par nawet la wala. waaw gaa gars yi taxaw ne. feneen gars yi taxaw maire baa ngi ne dina tey mooy lépp moom xam na lu bari li ñuy liggéey fii te moom da si ànd ak ñun du si sonn moom boo demee dina la wax lu bëri fii nii loo xam ne moom mën na ko témoin. baax na balaa balaa balaa ñoo jox kàddu gi sunu yaay dañuy bëgg tamit mu leer maanaam dékkuñu leen micro. pour ngeen wax lu leen neex déedéet dafa am loo xam ne da ngeen am ñu ngeen ko sékkaloon ngeen wax yéen seen part de vérité ni mbir yi keneen ku bëgg leeral tamit ci mbir mi tamit ñu bañ leen di jox micro ngir ngeen wax li leen neex dafa am loo xam ne moom ngeen bëgg askan wi xam ko mu leer ci li ngeen xamante ni dañ leen ciy faral di tudd kon Balla bu fekkee dafa am loo ci dolli balaa ñoo jox kàddu gi sunu yaay ji rek moom it moom témoignage yi mu def par rapport ak yéen seen taxawaay fii ci bu ñu joxee micro dañoo war a jox mikoro ndax ñun si réew mi lañ bokk ndax bu ñu joxee ñun yàgg nañoo yuuxu di nax suñu yaay kon tey booy ndaw bu ñu juddoo ngir di def lii kon ñu see war a gën a encouragé ñu xam ne ñun yëmbal lañ am amuñu lu dul yëmbal tey xoolal xoolal ay Malika Kër Massar yëmbal ko jiitu te yëmbal munoo yëmbal yëmbal munoo toog kele doog toog kele wala tës wala wala journal ñu ne yëmbal lii xew na fa wala yëmbal xoolal ni mel doo ko dégg. yëmbal kenn du wax seen dara dara dara yëmbal mën nga toog colee ba jóg doo dégg ko wax yëmbal man maa koy reyantee pour xoolal ñu am loolu noonu ba pour ñu respecter ñu. Balla Balla l'ambassadeur. waaw la la cent de cent fois de yëmbal barki borom daaru léegi nañ dem si maire bi. <laughs> maam Cheikh dimbali ko tuuti. la voix des sans voix boo yow. Ah, <laughs> tudd. yaay Billel tey ñu seeti woon seen doom yi ñoom Balla Mbaam xale yi fii nekk ndax bëri na bët bu ñu leen di xoolee ak yi ñu leen di toppee léeg ay gàllankoor di ci am kaso di ci lu ne di ci am waaye moom mu xëy mu ne dafa fas yéenee doxee neneen lu dul liñ leen xamee mu fas yéenee doon ambassadeur nekk voix des sans voix dajale xale yi léegi ñu am beneen xar kanam am beneen doxalin tey nu fekkaale la fi mu mel nii fii nga dëkkee looy wax ci xale yi akit lan nga bëgg a leeral tey jii nii. fii laa dëkk yàgg naa fi am naa fi ren fanweeri at ak juróom ñoom ñëpp fii lañ juddoo suñu kanam 2005 ba léegi nii lañu mel 2005 ba léegi lañu dugg ndox fii kii nii genn wàll yëpp mu ngi ci biir genn wàll yëpp mu ngi ci biir mu ngi ni sede la ci guddi lañ guddi lañ dugg ndox boo ba léegi ñu ngi ni at bu ne suma doom bi dina leb xaalis sa kii ma ne la genn wàll yëpp mu ngi ci biir ba daaw moo ci mujj daaw dañuy jékki-jékki rek kër gi yëpp fees loolu passé fii gis nga kii moom mu ngi nii kenn nekkul fi depuis ba 2005 bi la kenn nekkul fi agresseur bandi yëpp fii la ñuy dajale te kenn dekkul fi kenn dekkul fi waaye lu ñaaw lu ñëw lu ne ñu teg suñu doom yi ñoom yëpp man mii am naa ci ay doom ñu ngi fi waaye yàlla may na ma kenn rek moo ci yoon waaye ñu si des yëpp ah, ah, macha allah sonn nañu kenn lijjanti wuñu ñun waa yombul du ñu am dimbal war de sawet bu gën a tuuti nawet mosul ne ba ñu am sa kii war de sawet waxuma kay sànki waxuma pompe yoo mbot léegi ki lii bu ta keroog bu mu tawee mbotti fii lay nekk yeneen yaa ngi fi yeneen yaa ngi fi fii boo wiiree fii mbedd bi ndox bi fii la lay ñëw duñu génn guddi duñu génn bëccëg ñu ngi rek ci kaso ñun waaye kenn lijjanti wu ñu ñu waa yombal looy dénk sa doom yi ak eh, xëy na message en tant mu jëm ci askan wi. jëm ci xale ndax rey yi bëri na ñaawtee fi bëri na. loolu laa bëgg a wax ni li ma bëgg a wax nguur bi nee ñu dimbali laa war a suul yi ñun lijjanti ñun tamit senegal lañu ci kii bi dëkk bi lañ bokk. nañu dimbali rek lii jóge fii ñu dimbali suñu doom yi ñu am fu ñu jàpp première liggéey la amul boo gisee taxawal bi yëpp ñàkk liggéey boo amee fooxi suba be ngoon boo ñëwee doo taxawaal waaye taxawaal bi yëpp ñàkk liggéey moo ko suñu doom yi ñu ngi nii am ñu liggéey ñu gontuñ léegi groupe bu ñëwee boo xëyoo gonto bu yàggee nga ànd ak ñoom bu wax ñëwee ñu njobbaale la fekk yow nag bu bëggoo nekk noon waaye ñàkk foo xëy moo tax waaw léegi nañu nañu dimbali rek li lay war suñu defal suñu koñ bi ñu am canal am tali ñu dimbale suñu doom yi ñu am liggéey góor jigéen yëpp ñu ngi ni amuñu liggéey te mosuñu am dimbal dara dara lii ñun ñooy defal suñu bopp waaye góor noo mosul taxaw fi indi ñu sax saaku ceeb mën a am maa leen dimbali wala sànki bu ngeen takk musul am waaw. jërëjëf fi am na jël nag. jërëjëf waaw. yaay booy na nga def. maa ngi fi noo tudd. man Kajatu Diallo. na Kajatu ñu fekk la fi yëmbal ak sa doom yi ñoom la rawatina ñoom fi ñuy faral di fréquenter sa kër ne fa eh, yan kàddu ngay mën a indi ci sunu déplacement bi tey ak xale yi nu ñu fi dëkkee ak yéen ak it eh, xëy na li ngeen bëgg leeral ndax mi ngi wax naan seen dëkkin bi fii dafa xaw a jafe dafa métti. waaw maa ngi leen di sant di leen nuyu waaw dëkk bi fii moom wax dëgg yàlla moom métti na lëndam na. amul courant amul dara su demee ba timis jot kenn mënul génn fii bu bu daaj bu tàngee sax kenn ñemewul génn fii dara fu amul sax kenn ñemewul génn keroog rek xale yi naa ne gis nañ ay jaan si ñax yi fii nii si ginnaaw. ndox bi waaw si ndox bi si ndox bi bu tawee day ñëw ba sa suñu miir yi. ndox bi ren xale góor yi ñi ñoo jàpp ñàcc canal bi nii defar ko be ndox bi mun a génn fii ko ñun ñoon suñu amee ku ñu jàppale si ndox bi ñax dëj fii. loolu moom dañuy sant yàlla ñu ñaan leen nag ngeen jàppale ñu gaaw gaaw ndax nawet bi mu ngi nii ñëw na waaw. noo gisee ñoom Balla mel na ni bëri na lu ñu leen di xoolee di leen ko tuumaale ndax léeg-léeg tamit ay jafe-jafe tey nee na dañu fas yéene am beneen doxin fas yéene taxaw seen gox bi ndax lii fi am mu bëgg dañ tey yan kàddu yi ngay seede ci gone yi ak seen taxawaay ci gox bi. waaw nee naa ah, Balla moom bala daa baax rek. ndax moom dëkkul si barax bi mu ngi ni seen ngi nii ci kaw tali nii daa xam daa bëgg lu baax rek moo tax muy defar fii nii tey tey fii nii ñax yi moo taxaw ba ñu dagg ko si ndax ñax yi bu demee ba wow moom moo taxaw ba ñu lakk ko yëpp wàññi affaire yëpp mbalit su suy taxawee fii moom mooy taxaw ba jàppale nit ñi mbalit bi yëpp mu mu ko defar ko yëpp maanaam moom a sama waa kër ak yeneen xale jàppale ñu fii wax dëgg yàlla moom daa bëgg daa bëgg fii baax rek moom dëkkul foofu sax moom mu ngi nii fii la dëkk ci kaw mbedd bi wax dëgg yàlla mais gars yi kër Balla ah ah da ragal caméra maam. looy gone yi def lu baax rek tey góorgóorlu tey jublu ci lu baax sopp yàlla te génn ci lu bon waaw. yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal ci daraja yonent bi waaw. seet naa maam moom nan dafa ragal caméra ay eh, Balla teel ma lii seet naa li may maam wala. non non mu soxna man célibataire la mais sama fiyaa bi ñen ñoo ci am soxna. non kenn kenn amul soxna kenn. seex amul dara. ah kon ñu dugg ci biir kër gi nga présenté ñii ñëw. waaw man de maa ngi sama gaal la ngi nii. buy xiin di taa. xiin rek laa la waxuma la taw de xiin fii yëpp day fees jël ak ndox. te nawet bi passé si nawet bi passé ñun fi lañ fanaan si biir ndox mi xamul ndax tax ñu di dem si ay école dañoo dañuy bañ ba koro ñuy sàngoo suuf duñ dem si ay école di fanaan foofu ndax ba suñ kër taayee fii jam naa si dégestive yi ñu leen te yàlla ji tax doolu ñu may ñaari camion suuf ma sori ko suñ kër dañoo lànk ba tëdd si naaj bi bañ sama gaa la nii nag waaw buy taw di taa sama yaay ngi nii. kii moomu kii mooy sama yaay soxna Seck. waaw jox ko kàddu gi yaay yaay jox naa waaw. yaay booy na ngi fi maa ngi leen sant soxna Seck laa euh, maa ngi leen di leen waaw di leen seen xam. sa doom Balla lañ seet si woon la wax. Euh, ak ñamu àndal. waaw ni am na luñ nekkan na ci ay coow jaar na ci ay jaar na ci ay xat-xat waaye tey nee na dafa fas yéene am beneen taxawaay doon ambassadeur ànd ak ay moromam ngir ñu jox gox bi beneen xar kanam yan kàddu ngay seedi ci sa doom ak it noo jàngatee xale ak ban message nga leen di jox mu di yóbbal ci ñu dëgg la su ma sañoon daal xale yi changement bu bari ñu am ko ndax seen yaay sonn nañ trop su ma sañoon daal xale yi man damaa mënut wax ci télé waaye su ma sañoon seen doom yi il faut que ñu am taxawaay kii Mballa nag moom maa ngi koy jëm li ma bëgg rek yal ko ko yàlla defal mu a baax a baax àndandoo bu bon daal mhm. yàlla dindi ko mu dindi ko ci amoon na yu métti nag mhm. mu koy dund mhm. waaye nag damay ñaan yàlla di gën a ñaan yàlla ni xat-xat yi mu nekkoon nii yàlla dindi ko si mi ngi koy wàññi te yàlla gën a yokk loolu lay ñaan chaque jour bu ma jullee loolu lay ñaan yàlla dindi ko si ci maanaam Balla tey changé na yow mën nga ngi sensé moom bëgg nag ni mu sensé ni mu gën a yokk ci kàttanu yàlla ak jëmi sëñ Fallou Mbacké maa ngi koy ñaanal nag yàlla na gën a yokk bu baax a baax a baax mu gën a sensé ci kàttanu yàlla. dëkk bi rey yi bëri na ñaawteef yi bëri na en tant que yaay eh, lan ngay wax ñi nga xamante ne tey ñu ngi def li ni it xëy na ñu bëri dañuy ñaawlu loolu daal. waaw su ma ñu mel noonu moom yàlla bu ko si yàlla boole te yàlla bu ko ci yàlla def mu ànd ci ñooñu man dama koy ñaan yàlla chaque jour koo xam ne day def ñu fi ñaawteef yàlla bu ko yàlla def mu ànd ak ñu mel ci kàttanu yàlla ak sëñ Fall. nga tëj leen yàlla yokk te yàlla ma mën a taxaw da mën a taxaw yal na leen yàlla jàppale ci kàttanu yàlla ak baaxu Muhammad ci jërëjëf ma sa rakk ak njaboot gi de waaw sama moj kii mooy sama mbokku jigéen bi xujja kan waaw xujja la gi ñu ngi ci kaw yaa ngi si jàmm maa ngi jàmm yan a leeral ah, yàlla moom man instant bi moom ñu ngi am yaakaar ci moom bu baax a baax ndax tolloo na guddi yow tool xam ne mm-hmm. suñ daan toog sax ci mbedd mi ñu daan xëy sax suñ xel du dal waaye instant bi moom suñ borom moom ak ñaanu doomu aadama njaay mi ngi koy soppi te duñ ñoon yàlla koy yàlla gën a soppi mu dem ca kaw ca kanam yal na yàlla yokk taxawaay yokk seen taxawaay. seet naa defe naa kàddu yooyu leer na baal eh, sunu yaay a ngi noonu mais mbaa mi lay jox xaalis. <laughs> maa ngi koy ñaanal bu amee xaas moom incha allah dina ma jox moom ah. soobee yàlla bu amee ah. dina ma jox bu ah. soobee yàlla billahi maa ngi koy ñaanal bu baax a baax ndax Mamor Mbacke day ñëw ba fii di ko seet si du toll ne Mamor Mbacke jóge Touba ñëw ba fii hmm. muy def cantam gan gu baax gan gu baax xale góor yëpp ñëw di taxaw fii di ko teewul Mamor Mbacke ku baax la day jóge fii tuubaa Touba déplacé jóge fii ba tuubaa ndax Balla mi su suma ndax Balla mënoon na ne ah Balla du ma ko seeti ndax Balla baaxul ko gisee mu nekk si ay jafe-jafe nekk ay tolof tolof la la ñëw ne ko booy jox ma sa numéro téléphone yow doo saar yooyu bis boo génnee si problème bi nga nekk dinaa ñëw ba séen kër mu nekk jurbel ma di ko sekki jurbel mu affaire bi métti ma waaye nag ma toog di ñaan yàlla yàlla ma yàlla dimbali ndax da doon jàppale nit rek far yàlla def ko si natt boobu mu am ko si mu dem ñu jàpp ko léegi mu nekk foofu am fa yàgg fa nekk fa lu mat at ñu téye ko fa chaque jour su ma xëyee yàlla damay xewal loo xam ne ni damay jóge fii dem ba Jurbel dem seeti ji ko mu nekk fa ak Mamor Mbacke Mamor Mbacke ñëw fa di ko ko mu ko booy boo jóge si xat nga nekk man dinaa ñëw seen kër ñëw ba fii chaque jour nag day ñëw ba fii léeg-léeg ñëw fii mu defal ko cant goo xam ne cant gu mag waa mbedd mi ñëpp dañ koy teew booy bu ndaw bii dina tax ku jóge fii ba Touba nekk Mbacke Mbacke ñëw fii mosuma koo gis koñ bi li muy yaatu yaatu yaatu xale bi laa gis rek Mbacke Mbacke sa ñëw fii seetsi ko ci xale bi amul nag koo xam ne nii na sa jóge fii tànkam ak tànk ñëw fii seet si ko ci mbàkke mbàkke te maam moor mbàkke ñëw na fii nga ne lañ ko fii bu dul benn bu dul ñaar bu barki dem rek ci biir koor gi moo fi mujj ñëw na fii ndogoo fi ba ngoon mu ne ma meer maa ngi dem mbala dama koy ñaanal bu baax a baax a baax chaque jour ñu ngi déggante maam moor mbàkke te bu ko neexoon man na ah man du may dem Dakar di seeti xale bu ndaw te day dagg paasam jël otaan ñëw ba fii ci biir kër gi ñëw seet si Balla loolu laa koy gën a ñaanal Mame Mor Mbacke yal na taxawaay bi yàgg si kattanu yàlla ak baaxu ma maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax si kattanu yàlla yal na leen yàlla jàppale si kattanu yàlla ak jëmmi sëñ Fallou jërëjëf yaay sant ni ñoo ngi si pàqaloo bay nga xam ne man fii rek laay naanee café fii laay toog soo ngoon te ñii samay nawla lañ samay am di jàmb lañ tey bu ñu amee ay tolof tolof wax ma te man yëmbal laay dund te dañ leen ñëw jaay leen doole fii ñuy liggéeye ñëw di defaral leen loo xam ne ay banditisme rek lay gën a yokk fii li bu ñu ko defaree feene defaral lu ñu ko waa koñ bi de ñii booy toog fii guddi gi lañ ko defaral mais léegi bu ñu ko defaree xam nga ne waa koñ bi kenn ñeme fi toog fii nii. kon kan lañuy eh, kan lañ fi jox kàddu mu dikkaat ci mbir mi ci ñuñ fi fekk. ci joxal baara joxal kàddu. Ah, kon sëñ bi. waaw jaajëf waay sëñ bi maa di nuyu di leen sant. sa bal mi moom vraiment moom. nga présenté wu d'abord wax waaw man maay Bara Sène man maay Bara Sène. waaw yaa gis ñun fi la fi la nekkoon di liggéey te Balla waaw ñu duñu yet ñun ay law ba yaa gis suñu place yëpp yàq nañ ko ba ñëwee nii sa toog amuñu lenn. maanaam defe naa lépp loo gis dina am fu ñu koy jaarale biñ waa nan la demee expliqué ñu nan la. waaw yaa ngi dégg maanaam dama bëgg xam nga nee nga dañ leen fi fekk jaay leen doole jëlee leen fi waaye defe naa ni tamit eh, mbir yi dina am nu muy demee eh, naka la demee seen diggante ngeen ba ni ngeen fii fi yëkkatee lan ngeen waxtaan ci lan ngeen dégg. ñoo ñoom daal dañoo xëy xëy rek noonu léegi daal dañoo bëgg ngeen jóg waaw waaw jox nañu place bu ñu joxoon place bu ñu yettee fu ñu yettee ñu toog fa dem fa bàll mi nag moom fi hôpital Pakate dafa fa dafa taa mën na faa toog di yett yaa ngi dégg de Balla mii lu ko lu naqari fii da koy naqari moom mii yaa ngi dégg gëru fi yëttu fi waaye nag yaa ngi dégg lu lu ko lu naqari da koy naqari yaa ngi dégg ñu sayoon nag yaa ngi dégg ñun ñu wut ku ñu si ja ku ñu jàppale yaa ngi dégg am fu ñu liggéeyee tax ñun ñëpp ñun ay boy lan yaa ngi dégg ñun ay sëlën yaa ngi dégg dégg ma nga ne site bu ñëw fii di filmé gars yi dañ lay dañ lay tëbal lu tax loolu waaw parce que dañu bañu suli seen i mbóor xam nañ ni def na tamit am na am na lu tax nu def ko na am na njëriñ goo xamante ni jàpp nañ ñoom buñ ko defee euh, di am na lu tax xam nga loo gis tamit dafay am sabab waaw loolu moom na moom waa nag yaa ngi dégg nit moom li nga wax ni dëgg la waa nag ñun moom bu ñu jàppale woon am fu nekk mais nee nga ma léegi am na fu ñu leen yóbbu. waa fee sëñ bi fee ba fee daa taa. fee tudd. man Momadou laa tudd. Momadou nga ne fi ñu yóbbu lu xel. fee teeree jàmbur la këru jàmbur la te ñoom li ñu def nii sax ñoom amuñu xel. Momadou laa tudd. Momadou yow lan nga ci bëgg a dolli lu xew nga. dama ne développement. Mm-hmm. liggéey moo ko yor. mais du terrain basket. tubaab yi ñuy roy ñoom. kon maanaam fi bëgg a def lan lañ fi bëgg a amaat. lii amul njëriñ amul lu ñu. mais yéen tamit gox yi léeg-léeg maam Cheikh dañuy soxla ay. jardin public dañuy soxla terrain basket wala. balaa ngaa tal basket sa poche day diis ba nga mën a tal caaxaan ak fo ak féexlukaay place publique amul njëriñ sa poche. dégguma la bu baax nga ne balaa nga. ngaa tal fo sa poche day diis ba pare balaa ngay toog si place publique di féexloo ko jëndi connexion yu kenn xamul sa xel dal nga yor boo amul foo liggéeyee yoroo si ñaxtu ngay dëkk nañ lijjanti ndaw yi ñu am fuñ liggéey moo solo lii ñuy def li amul njëriñ li doxul Seydina ndaw ñi nangu nañ liggéey nangu nañ sonn alxuraan fii gars yi ku leen jox waar ñu waar mais nit da ngay xool li nga xamante ne ni moo tegu mooy liy doxal réew tubaab yaa ngi tubaab yi ñuy roy nii ñoom ñoom ñun ñun ñu ñoom dañoo am lépp ba pare doog a tal fo te seen fo sax daanaka ay 10 minutes la 15 yàggul mais fii nag ñoom fo rek la ñu bëgg a indil fo terrain baa ngi ni ñu toj defuñu fi tus bañ ko tojee ba léegi birig teguñu ko fi. kon ku baax ñu bàyyi la nga tëj nga wax ñu xëy na yóbbal bi lan la non la moom moom defe naa moom. loo ci moom li may dolli moom mooy lii. mooy lii bu ñu ko woon a defar. ñu gis ne maire bi xam nga ay jaan am na ay yeew loolu moo ëpp farata téeméeri junni yoon ñu defar fi lii. kii isaan yi xool kolos ba fa ko tabax sax kolos ba day taa. kii dafay moom dafa yaakaar ne moom. isaan érosion day jot rek maire jot rek ku nekk di përëx përëx yi bëgg a defar benn. benn paqus nit ñi jàppale si gars yi yeewu nañ de. Hmm. nit ñi yeewu nañ bu ñu xam nañ bàyyi xam ne fii nag balaa fi nekk la sans sans voix moom moo nekk yëmbal gii yëpp nañ xam ne non yaa ma gën a xam. <laughs> fooy tëjee. kon yaa ma non joxal sa waay rek am ama waxal moom. <laughs> Ah, di leen sant rek gërëm si waaw su ngeen def rafet na lool. waaw te di leen wax ni Balla mi moom lépp lu ko naqari du bi kese sax moom yëmbal lay xeexal xeexalul kenn ku dul yëmbal. nu mu rafetee. tey lan mooy seen relation ak euh, ñi leen fi yilif ndax gox goo gis tamit am na kilifa yu fa yàlla teg. yilif moom wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey waaye liggéey gi ñu liggéey moom. tamit nag rafetlu leen am na loo xam ne def nañ ko lu baax. parce que man bi ma toogee ba tey gars yi dañuy ŋaññi rek tam ñu ne waa booy bi moom xanaa daf ñuy xeex mi ngi jox gars yi ñu ngi ŋaññi rek. leen de mais ñu li ñuy liggéey li ñuy. na tes micro tes micro. ok kon ma baay lan ngeen tëj rek ngeen wax ñu tey lan ngeen bëgg comme message mu jàll rek gaa yi leen teewul. ah waaw xanaa di leen sant di leen gërëm rek te di leen wax ne ñun fii lañ xam fii lañ am ñun bañ nekkee ba léegi ñu ngi si pàq bi ak suñu mag yi ku ñu xam fii la ñu xamee donte sax man du ma lawbe mais ku ma xamul sax lawbe la may teg ndax yàgg fi te fii la ñuy man defe naa Sénégal affaire lawbe géwël xeet loolu moom faux débat la am déet pour leeral rek. di wane na ñun yàgg nañ ci pàq bi nii. ñun ñëpp fa yàlla. xale ba léegi ñu ngi fi di liggéey ñu ñëw ñëw rek. doomu aadama la wax. benn jour rek bëgg la fee jëlee jaay la doole te loolu doxul nguur yàlla rek moo dul jeex. yàlla moom yàlla moom defe naa moom wala xat karam naa bànne aadama du dëgg. waaw kon waaw di leen sant rek di leen gërëm waaw. waaw jaajëf waaw waa Sénégal yi ñu ngi leen sant bu baax li ngeen def am na solo rafet na. non ñun moom wax dëgg fa yàlla mu leer fii ñëpp lañ fi nekk micro bi ñëppay ku bëgg a wax te bëgg luy jëmale réew mi kanam nu ànd ceeg yow du yàq nu tax a jóg ndax boobu ba tey nu fi saaga nu fi lu ñaaw waaye tamit gox foo mu am ñu leen neex am ñoo xam ne dina am lu leen nakkar waaye lépp ngir bëgg mu defaru rek du dëgg kon ñu bàyyi nga tëj. waaw sant di leen sant di leen rek. waaw. ñaan <laughs> la yoonu jàmm waaw yoonu ñu jug rek tëj affaire bi defe naa journée bi xawoon na gudd tuuti ruq gu ne dugg nañ fa. Euh, jotaay goo gis tamit dafay am fu mu tàmbali am fu mu yem du yem fii sax ndax bëri na lu war a nal feeñ waaye mënuñoo feeñal lépp waaye li gën a am solo mooy defe naa mooy mooy message bi. mooy message bi nga xamante ne nii euh, askan wi war na war na war na leer kon ñu bàyyi Abdoulaye mu nga xamante ni moom leen àndal ci caméra bi mu ànd keeg naa Alioune chauffeur bi Serigne Saliou sunu doyen El Malick Seck ak équipe bi yëpp nga xamante ne tey ñoo déplacé woon def immersion dugg ci biir banlieue bi tey nag ñu jagleeloon ko woon waa yëmbal yëmbal sud bi ànd ko ak Balla Mbaam defe naa bala moom ñu bëri miin nañ ko am ci lu ñu ko miinoon am ci liñ ko daan dégg waaye moom li tax ñu sawar jaxasoog moom ndax dafa teg tànkam guddi ñu toon nii ci lu nu gis ne dafa fas yéene ko ñoom am beneen xar kanam banditisme gi ñuy dégg ci Sénégal waxtu wi ñu toll nii nga xamante ni bëri na gox yoo xam ne man mii grand gi ma dégg dëkk rek maa ngi profité de l'occasion di jaal ndaw gi nga xam ne moom leen faat ak jamono yële étranger suba sax war nañ fa amal dox ñaxtu ngir def appel ci askan wi ne leen ñaawte yooyu ñuy dégg rey ñuy dégg agression yi ñuy dégg crime yooyu yëpp tey jiin daf ñuy delloo gannaaw rek ñun mënuñoo boole ñàkk ba noppi bëgg suñu biir kon na ñuy bëggante di jàppalante Balla defe naa loole li gën ba tax na loolu nga nu woo nga dugg ñun ci gox yooyu nga xamante ni gis nañ ko sànq ruqruqaati génnee loole nga xamante ni tey jii ni bëgg nga tey ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk tey ndombal tànk ci réew mi dënk yenn taxawaay ngir ñu ñëw taxaw leen. ndax tamit ñun li nu tax a jóg rek gungee leen ci lépp li nga xamante ni dafay jëmal réew mi kanam dafay defar réew mi keneen ku soxle tamit ñun ñu ngi fi ngir lépp luy jëmale réew mi kanam Balla ñu bàyyi la nga tàggatoo balaa maa yëkkati jotaay waxtaan bi. waaw kon maa ngi sant ñëpp di sant yëmbal gi yëpp autorité yi nekk ñu ñoo leen jàppale doomu yëmbal yi quoi xam ne ñun li ñuy wax ne yëmbal amul autorité amul autorité dafa dafa wane quoi ndax. yëmbal lu tax amul autorité cette politique boobu. non am na autorité am na ñu fit nekk mais xëy na tamit euh, am na loo xam ne tamit amagu leen ko. waaw loolu moom dëgg la mais tamit maa maa ngi baalu àq ñëpp ñi nga xam ne affaire yi tamit loo xam dafa ñaaw mhm. maa ngi ciy baalu àq ñëpp di sant samay nit bu baax ku si mel ne lay orka ku si mel ne seex maa ngi koy sant bu baax ay ñoom pap mhm. ngañ maa ngi leen di bëggee bu baax a baax waa Dakar yi peut-être seen mhm. bàyyiwuma kenn Sandaka sama gars yi fa nekk yëpp maa ngi leen di bëggee ba Samet buumi ñëpp policier ñëpp maa ngi leen di ba Thiawane Pël Namara gars yëpp maa ngi leen di bëgg sama gars yi nekk foofu yëpp eh. yëmbal siddi ba yëmbal noor jàmm gën ba géejawaay hmm. gars yëpp maa ngi leen di bëgg ba sam-sam bàyyiwuma kenn maa ngi bëgg ñëpp bàyyi faal yëpp nag lim nag day jum Matar Cuun ñoo ngi lay bëggee bu baax a baax a baax si lim ñu jàppale korok ba ñuy defar barax yi Matar Cuun ñoo ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di bëggee sama sëriñ sëñ Mamoor Mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi allahumma amin sëñ Mamoor yàlla na ko fi yàlla bàyyi kilifa diine ci Sénégal yëpp sans exception yal na leen fi yàlla yàggal bàyyi leen fi defal leen wér moo xam kilifa aada yi ak ñëpp bàyyi ñu kenn maam Cheikh sawaay waay dégg nga li mu tëjee yow tamit